sénégalais à l'extérieur man loolu laa bëgg nga wax ma. ah ci diaspora bi nga bëgg wax. oui ci programme bi nga wax ah ok non comprendre moom loolu kon yomb na. na xam bi lu ñu soxla méttiwul déjà dañuy réduire ambassade yi parce que am na dëkk yoo xam ne soxlawul am ambassade xam nga lu ëpp solo ci diaspora bi mooy que ñoom ay bureau administratif yoo xam ne sénégalais bi nga xam ne dafa soxla këyit mu am ko te mën koo déposer tamit si lu yomb benn day mel ni par exemple soo xoolee yenn ambassadeurs yi nekk fii nii maanaam Sénégal États-Unis par exemple moom mooy jouer rôle ambassade Gambie Guinée Conakry Guinée Bissau et tout Sénégal mën na loolu c' est mieux que chaque pays ñu war fa def ambassade def fa consul loolu dépense la mais li war woon mooy am benn bureau administratif par exemple ambassade Sénégal bu nekk France mën na jongler Belgique beeg yooyu noonu. de sorte que manaam Belgique day am juste benn bureau administratif boo xam ne maanaam Sénégal yi nekk Belgique dañuy déposer seen këyit après ñu traité ko nu mu gën a gaawee beneen ñu jël au lieu de jël ay maanaam électorat boo xam da nga leen di jox di leen fay ay salaire nga teg fa ay avocat commis d'office pour que sénégalais yi nga xam dañoo am problème judiciaire ci dëkk tubaab yi ñoom ñu mën leen défendre et façon très gratuite parce que état day dooleel doomu dëkkam ci fu mu nekk da koy sécuriser Yaya da ko def avec les Gambiens Gambiens boo am problème je me rappelle très bien sama yenn xarit Gambiens mais dañuy dem ci ambassade ils ont un avocat gratuit mais loolu Sénégal amu ko ñu jógee si Sénégal yi nga xam dañoo ñàkk seen bakkan ci bitim réew ñu xool nan la état mën na amee maanaam benn fonction symbolique boo xam ne mën na leen indi rapatrier leen moo gën ñuy xaawi sutura ñi xam dañoo génn àdduna ñii di cotiser cotiser cotiser ñu bàyyi benn corps muy glacé ay at loolu léegi foo jëlee xaalis boobu. suñu dindee maanaam yenn payooru ambassade yi nga xam ne amul benn njëriñ ak consul yi nga xam ne amul benn njëriñ ak seen jabar li ngeen di jox par mois tamit benn njëriñ seen mindaan bi tamit amul benn njëriñ ak maanaam ñi nga xam ne mooy sukku sukkaat yi amul benn njëriñ soo ko dajalee loolu mët na fond